envoyez de l'argent au Sénégal depuis l'Europe et le Royaume-Uni avec TapTapSend. Vos proches reçoivent l'argent directement sur leur compte Wave. C'est rapide et il n'y a pas de frais de retrait. Chez TapTapSend, la sécurité et la rapidité de vos transactions sont notre priorité. Qu'attendez-vous? Effectuez vos transferts maintenant. Alaaji Askia nee na daf daan taw bu nekkee ci biti gan ñi di nekk ci ay bu baax la sociale ki bëgg ñëpp ci bëgg ci lu mel noonu la ñëpp di mel baax gën rii kon dañoo gën boo génnee gën moom mooy photo leen photo leen photo leen photo leen ñaari faale li ma ñaanoon yàlla dama kontaan ma ne li ma ñaanoon yàlla màggal waaw waaw ba pare ñëw màggal fi ma ñaanoon yàlla yàlla defal ah muy lan ma ak nii fekk du photo du télévision du face à face ay waay waay dama jógee ba France uniquement ñëw pour ndeysaan ndeysaan soppeem la gis ngeen ko na ma jógee ba France nee na li ko li doon ñaan yàlla yàlla defal na ko ndax gise na ak Adja Ngoy Fall jógee ba France. amiin amiin dem beneen kër ndax naa sa kër mbokk la wala ma laaj si ko yaa fay laajal sama doom bàyyi kuréel yi mooy tax ba ñu ñëw kuréel yi waaw loolu gida ñu ba ñu àgg bisimilah la ñu yaasal ñu ci kër gi mënoon nañoo siis ne moo am ci àddina bi moom ci boppam moo takku taxawu di defar Seydou Fall borom xolu janaa bi ma ne ko bu génnee gën bu fatoo gën li may wax tata ma rek naan ko ci wàññi maa la samba askor néew lay mel ma tase ni daal Alaaji Askiya Touré kenn du mu baax maa den den teeg ki nga mooy Adja Ngoy Fall ci lu baax lay yëngu wéet na gore wéet na vraiment ni mooy téeméeri nit ñi tax lu weesu mbaa Sadio la yàgg nañ si jaar kon tey jii mu jaar mbaa asiyaatu mu faari si jàng ni waaye ku ma jot ma bàkk ma jot dafa daw ku ma bàkk fàcce maa jot day bi ci xam jawaaram bi ne ne mooy sa am may do ñaar fay la ci xol bi yaa lay doon ana ngay faal Malick wéré ni waaye baay jàng ko ci ni waaye baay ñu faal faal yi baay

ànd ak sa borom kër nga xam ne lépp lu tax nga ko def Touba jigéen bi dee xol moo mën def daal bi ma ko waxee xolam doo fa seetlu ko doo ko def dañoo dañoo topp yàlla sax une grande date bu baax ku ma doon góor yàlla yow suñu baale sa xol ak bëgg a def social lii nga def Touba kooku xam ne suñu Touba rek la ak sa turam aussi bilaat bi defoon naa leen gàtt dana gudd fan baax si dana ko fekk guddi gi ñun ñëpp ñu ngi fi. yàlla sàmm. yaram Mbacke Balla mi ngi nii di baax. di gën mën ay nitam. mën a ànd ak ay nitam. te bu leen rawee dina toog xaar leen ba ñu ñëw. dina leen wax bu baax li ñu ko sol day sol ay rakam bay sol ay mbokkam. di ko sol ñun ñii ñu ko yàlla boole. ayam bu may faa yaa baax yaa ngi. bu noppi doo baax. ma defal la social nag yàlla message ma ko li yàlla bu baax bu gën nee suñu càmmiñ ñuy wax ma ne la Adja Doumbaye Fall eh dama laa bëgg a defal social nga ni ma nday doom loolu bu ko xaar lu mu yàgg yàgg léegi def ko ndax sama xarit bi sama soppeeku lu ñu bëgg suba ba jant so maa ngi a man Adama Touba Fall lu a solo mi nit ñi bëgg ma sopp ma lu ñu bëgg maa ngi suba ba ndaw liggéeyam. namm ma dara nag gàtt sant ak nag. Amadou Koba xaw na wooyee baayam. Amadou Koba xaw njama. mais sa benn benn ko jaay ma ne ma mu gënoon denc la tànk. mais denc la ko semaine maa jox. kile wéri man bu bees bi génn. Baye Fall Bakk lay ko wooyee. Baye Fall Bakk Fall gën nga ajartu Ngoy Fall koo àndal yaa jara yaa baax yaa gën. borom kay baax a ngi noonu ajartu Ngoy Fall jigéen ju baax. su respecté doomu aadama yaa ngi sàmba. man de ñu laaj yéen ñu mën a mbay sax booba laa wàccuwaay wi ñu war a am moo waral ma dagg sama yitte dagg sama activité yëpp ñëw def Touba quatre mois def tout rek gan ñi am fu ñu nekk wàccuwaay boo xam ne dina ñëw daal. Mm-hmm. ñu gis kër gi macha allah ni mu taaroo waaye lépp rek pour màggalu sëñ Touba gi. lépp rek sëñ Touba ñun ay murid la lu ñu am Touba lañ koy andi. Mm-hmm. looloo waral ñu tabax kër gu ñëw. Mm-hmm. gan ñi bu ñëwee nekk à l'aise duñ bëgg sax bi xool gaa yi gis neen gaa yi nee nañ ma laajal ma maire bi fe bi ci biti moom loolu lan la lu xew lii gisuñu ko fenn ci màggal. lépp màggal suñ Touba gi rek ñun <laughs> ah. pare ci sànq ba bi pare ko faral dama nii rek. waaw mhm. ah, su paree di ngeen kontaan. Mhm, macha <laughs> kon daal gars yi lii première attaque bi la ah mais vraiment sonn dëgg dëgg dëgg lii lépp moo ko defar nag. ah. moo taxaw chantier bi moo ko réglé ba mu toll fii. waaw. ah nekk ak mënu yi nekk ak maçon yi nekk ak ñëpp ba lii mu toll fii moom kenn. waaw ginnaaw yàlla. waaw te jubluwu si lu dul. waaw sama mbégte. Mm-hmm. loolu rek si jublu. Mm-hmm. sama ngërëm rek si jublu. Mm-hmm. loolu moom làq na ko sax nag. Euh, soo bàyyee sa sa sa sa njaboot ñu nekk ñu nekk si biti lu yàgg yàgg. Mm-hmm. ngir euh, fexe ba gan yi suñ ñëwee. Mm-hmm. Euh, seen nekk mën a jàppandi. Mm-hmm. am na lu tax ñuy wax loolu am na lu tax am li tax nag mooy bis bi. ndax bii bis bi gàntal bis boo xam bi dafa ne. bis naka tey jii. waaw ah, bis naka tey dafa wax ne. waaw. ma ma dafa wax maa ngi dem. dafa wax ne dafa wax ne. man man tuuti rek mm-hmm. maa ngi bañ dembal yéen ma koy bëgg a jóor. waaw mën dañu àtt ndax xam nga. tey yéen moo koy bëgga a jóor tey la bisu màggal. Ah? te tey sëriñ bi li ci waxoon ci bis bi. ku fi ñëw dana xam ne alaaji Askia Touré ak ajaratu Ngoy loolu la ñuy dundal muy bég tey bégle reen di xool li bernde ku ñëw ci kër gi di gis loolu faaw nga may gaay waxtaan woo xam ne ci bisu màggal gi mën da ñàkk daaw yàlla dafa dogal ñu nekk ci màggal gi mu taw waaw nga am ay gan ñu taw de dara dara dara gënu ko mhm. gi weesoo sa suba ga ma waxtaan ak moom mhm. dama daal dama bëgg ñu màggal si di kër gi mhm. fexe ba nit ñi suñ ñëwee daañu ñongu si lu nekk mhm. taw bi suñu tawee mhm. du tere ñu liggéey mhm. su tawulee du tere ñu man fee nekk jël conditions yi di xalaat bi ñu ko waxtaanee ne ba ba tënk dara donc nañ jublu ci loolu jubluwaay boobu mu indi lii tey ndax euh, kër gi suñ ko defaree ba mel ni màggal rek lañ koy ubbi màggal rek a tax ñu koy def ndax su la Sëriñ Tuubaa defalee loo xam ni kenn defaloo la ko da fexe ba defal ko loo xam ni moo gën lu nekk si àdduna ndax wala fi ñaay day wax ne mm-hmm. fu mu baax fu ne gën dafa sore mm-hmm. ñëpp baax na yoon sëñ Tuubaa dañoo gënal nag ni su la gënalee di nga jaayante mooy jaayante bi mm-hmm. bi nag dafay tàmbalee ci sa njaboot ci sa soxna xam nga bi lislaam ñëwee jigéen la njëkk deretam tuuru ci lislaam kon jigéen am yàgg na am taxawaay ci diine bi waree war ñëwee jigéen a njëkk jël alalam jox ko Seydina Muhammad bi muy génn àdduna it nag la doon dag jël socc bi di ko yëy ba mokk di ko si gémminam nga jigéen la hmm. kon jigéen nag hmm. ah, amul amul lu dul ñu war ko jaajëfal war ko hmm. teral war ko suturaal war ko yëkkati war ko kaweel war ko suural ko këllal wante war ko naal war ko màndil yàlla moo ma booleeg kii ci loolu muy ko xam ni sama diggante moom yaa ay yool yaa ay la rek ak la zina amul damay jiitu rek mu topp sama ginnaaw maa ngi wax business su génnee day réer wante dëgg la ni koo xam ni yow moom rek ngay waxal moom rek ngay jëflanteel su kenn ki gisul moroom faa mu wax ndax kenn ku ne da ngay bëgg nettali sa moroom li xew démb wala li xew ci saas euh, màggal gi nag bis bii sëriñ Tuubaa bi na xasi gu ñuy wax assirul mal abrar mhm. jox ko góor gi ñuy wax abla euh, jox ko góor gi wax ëman Njaay maa béy ca Ndar mhm. booba Touba baa ngi koy yóbbu mi ngi koy wax ne ko maa ngi ami ndam yàlla may jóor ay ndam jéego bu nekk mu jóor ma ay ndam mhm. ne ko diw day dem mhm. du ma ko du fekkee sama ñëwaat diw dina ko fekk diw day dem kon moom bi muy dem xamoon na dina dellu dina mhm. dellu si donc liggéey gu rëy googu ba mu ñëwee ba Grand Bassam la tàmbalee yàlla di ko di ko ràng ay yëf lu mu fa def rek dañuy nettali ay jaar jaram ak gabon ak su kooree def nii ak yooyu yëpp xamoon na ni ay yokku la ñun nag li li rembat li rembat ba tuur rek dañuy dunde nii ndax nee na asxaabul jannati hum fiya xaalidun ilayka yaa xayral bariyati salaam loolu doy nañu lu nekk ndax koo xam ne dafa ne ilaa si nafsi doy na lu nekk sëñ Tuubaa nee yàlla jox na ma xamal na ma lu mu xamalul kenn si kenn ci mbaaxu yonte bi salaa salaam loolu mbaax la goo xam ne lu fi yàgg la euh, euh, euh, bisim bi nag mu ne lépp loo xam ne nekk na payeef kama cay jàppale sama bis bii mm-hmm. la ma yàlla di sédd ñooy bokk waxul dama ne ñooy bokk mooy Cheikh Ahmadou Bamba baax gënu ko weeg li gënul kenn mënu ko gën a baax kon su loolu amee dañuy s soobu ci góorgóorlu si ba kenn duñ ci gën kenn duñ ci mën loolu indi lii rek ak jataay bi ak yooyu wàllu bernde yi nag nee jigéen moo yor kër góor dee wut rek jox la jigéen mooy rek réglé lépp lu fi baax rek moom la lu fi gën moom la kon nag moom dafa yaakaar naa ni fekkoon du woon xëy na coono gi ndax soo xoolee nag jeex na rek jeex na ndax jom ndax moom jom moom nit ki fekkee dañ la ko mooñaaleel rek sa lépp sa lépp Ah, ah, ah, di nga di nga ci fulla ak taxawaay ba li nga ci bëgg yàlla defal la ko mhm. donc yaakaar naa ne ñi fi ñëw tàmbale nañu at bi kontaan wante déwén incha allah suñu yóbbu su ngeen di gën a kontaan mhm. ndax dañuy fexe rek mhm. kër kër gi di gën a yaatu béréb bi di gën a yaatu ba mbooloo mi di gën a yaatu ndax nag dëgg-dëgg Sëriñ Tuubaa moom amul lu dul lu baax moom lu baax lu gën rek la am dañuy wax laa xawfun alayhim wa laa hum yaxzanuun loolu moom mënuñu ko ñàkk bañ a wax mhm. soxna si nag mi ngi doog a génn xam naa dina génnaat waaw may leen ko mu dem ñëw ma wax ak yéen ci sëriñ bi waaw déedéet waaw may ñu rek bala nga àtt kii xam nga yow kilifa nga te nit ñi dañ lay déglu sa kàddu am solo actualité ci dëkk bi moom mën naa génn waaye ñu ñu ah, ñu continue ñu ah mën nga gis la ñu ak yow ci actualité rek ndax euh,